bismil ilaahi su ngeen teewloo ma tontu si leen yenn gaa yi may laaj sama gis-gis ci fii Sénégal doxiinu réew meeg ñi leen jiiteeg ñi leen di dagu ak seen jamaale yu ñuy xëccool ci yor senegaal am réew su ndaw yay nelaw mag ñay warante ni jën ay lobi ñooy tànn aw nit jaay ko waa Sénégal moo tax dañuy fal balaa def diir ñu réccu ko ngir dañ ko yilif yilifu biir muy yilif Sénégal lu gën ci réew mi ñu jox ay xonq nopp tena man réew mi rek moo ma ñor ciy maa yërëm Sénégal dañ leen di segg ba gis seen démb kenn sikku leen ñu sant leen sulli ay mbóot yuy bégal senegal ba ñépp naw leen te naa waajaangi booba bëgguñ Ludul ñu xey dàq leen ñuy bës ci biir Sénégal di wër sëriñ si diraam tay mokk fuñ mëna jëm té booba na muñ ludul jaay intérêt Sénégal bi ñuy yor di wër réew mé ka dox di do ma masa xam fu mbawo ñi ñoo labal Sénégal fo xam ci réew mi dinañ def ité séti ji leen te buñ falo fàtte leen ñoo bon ci wa Sénégal sangoo dok ci rub nit ba nga tayle bakkan ngir jiite lii doonatul dimbali waa senegal dagaani ba rek nga wut ay nit ñu newi ba seur sa doomi bay sax bu juuyoog yow ñu yeb ko ci gaal dagaani ba rek nga wut ay nit yu newi ba seus sa doomi bay sax bu juuyoog yow ñu yeb ko ci gal ku falu fuy ñala far def la bur di la wër butuñ la dégg ba lay gis wërta am Sénégal ngay bur di bummi di yaataa yimbe nekk ca kaw bis yépp tey yaay parrain bi wërta am Sénégal transhumel féete ak man baa ma farlo la audit bis boo nangoo loo jëloon rees wërta am Sénégal mboolem ñi am baat nga santaas leen ba duutuñu wax ku lay opposé nga jël tëj wërta am Sénégal say doom di jàngi bitim réew ñun ñu dëkke geraw bañ di ñu dóor lacrymogène wërta am Sénégal étage bitim réew ñi ànd ak yow étage sunu wet ñun ñi la fal mënuñoo mool wërta am Sénégal ñi tas xibaar féetewoo ak yow di mos ba doyal ñi féete ak réew mi duñ mos wërta am Sénégal dem le ba diis gann ñuy fay ngay defar lu la neex te dooñu laaj suñu xalaat it wërta am Sénégal ñun ndaw ñi nañ yeewu moytuy falku réew mi ñorul ñun yëmul kër bitim réew ñooy ndonol Sénégal kuy kandidaa nañ ko lañ bat xool ko xool fa mu jëm ak bëgg rekk doyul intérêt bay Sénégal du yomb nag ndax juróom ñaar ñoo fi tànn juróom ñaar fukk ak benn ñee dañ leen a xañ Sénégal amaana tee nañ ku gën ñi waa ndekom ñi ko def luñ def du dañ nañ ko doyloo xool ku jig Sénégal ñi wàññi seen mbër na ngeen muñ mbir mi metti na ngir seen waxtu ak seen alal ngeen boole wër Sénégal ñi jàll nañu wax ca kaw liñ yéene buñ fi faloo ñuy teewlu tey moytu far farloo balor Sénégal kuñ fal mu mooy lam waxoon wàccam gada daa war a leer mooy tax ëllëg ku ñëwaat jox respect waa Sénégal kuñ fal mu mooy lam waxoon wàccam gada daa war a leer mooy tax ëllëg ku ñëwaat jox respect waa Sénégal neexaayu nguur géey li tax kuy nguuru doo bëgg a dem kuy wax di wet di jërul jug Sénégal ñii bëgg a rey réew mi mooy ñii xam ne nguur gu fi ñëw ñu daldi daw féete woon ñoom fàtte waa Sénégal ñu liggéeyal lu dul xas ñañ fi daa xalamal ñoo ñàkk ngor ñoo di ay jaam ñoo lëjal Sénégal ku yàlla cër ngay opposant jaay sa ngor waru cir cërub opposant yi taxaw kenn bañ a jaay Sénégal buñ la xëppee doona lus gor buñ la xuppee dëgëral té loy waxit arjumantel jox ko wa Sénégal buñ la xëppee doona lus gor buñ té loy waxit arjumantel jox ko wa Sénégal sun mam ya bañ nañ ba dem ñun ñi fi dess nañu bañ mu gi su ñoko tek Sénégal teñ wàññi mbon mbon yi tey ñaan jàmm fuñ mën a ne ba yàlla naatal sunum réew ñuy sagoo Sénégal te ñu wàññi mbon mbon yi tey ñaan jàmm fuñ mën a ne ba yàlla naatal sunum réew ñuy sagoo Sénégal ku gën ci réew mi damay ñaan yàlla fal ko mu ñëw def fi ba def luñ mësul foog muy ndamul Sénégal